ay fo médicament ak yamba ju beuri mom la brigade maritime bu mbour daal di tek loxo buñ koy xeyma ci walu copper toll na ci gen walu milliard. façon yi garab yi amna ay antibiotique amna ay garab yu seddal yaram mais yo xamantene ay association la manam dañuy jël ñaar ba ñetti garab bolé ko donc yoyu garab plus ñukoy associer donc plus muy am risque par rapport justement ak organe ak santé bon ñeug bi ëpp na tuuti gen walu milliard. donc euh, cinq cent dix huit millions ak lu topp la. ci wàllu médicament waaw ci wàllu ci wàllu médicament yi. ci wàllu médicament donc cinq cent bon yamba bi war na toll ci lu ñuy wax trente millions. buñ sukkandikoo ci patron douane bu Sénégal jamono ji ñii nga xamante ne ñoo def bii la jëf ñaar ci ñoom teg nañ leen loxo ñeneen ñi ñoo ngi leen di wër. am na ñaar ñu teg loxo am na tamit ñeneen ñi nga xam ne tegaguñ leen loxo mais xam nañu seen tur xam nañ à peu près lan mooy seen activité donc enquête bi douane mu ngi koy topp. yile Samba Boy nag ñoo ngi leen tegee loxo ci ab opération bi nga xamante ne moom la douane duppee bouclage du littoral li nga xamante ne ca diwaanu Warang fa lañ jàppee yile foo médicament ak yàmbaa ji